président Macky Sall mm-hmm. nee na ki muy jox réew mi mm-hmm. du génn réew mi du dem fenn fii lay toog ba pare du yem si toog da koy xelal di waxtaan ak si loolu loo gisee loolu. waaw defe naa war ngaa jubbantiwaat li nga parce que moom moo wax ki muy jox réew mi. waaw ki muy jox réew mi. ah moom jox ki gañe laa war a wax. réew mi kañ ki koy joxe mooy askan bi. non moom boo ñëwee moom moo lay jox. Mm, waaw non non moom day jo dalay paas lengee hmm. maanaam lengee ginnaaw bi ñu la ko joxee ba noppi hmm. dalay paas lengee maanaam passation de service bi nga xamante ne bi mooy kii mais réew mi moom euh, dañuy dem di ko joxe askan bi ñoom ñooy joxe réew mi hmm. waa li président Macky Sall wax nag Assane man de wax dëgg fa yàlla euh, ni mu ko waxee noonu yàlla na ni demee parce que man loolu laa euh, bëgg parce que loolu day wane rek ne fi ñu jëm donc war na cee bu fekkente ni dégg naa ko man. Hmm. li nga xamante ni moom la wax noonu. damay jàpp rek ne fi ñu jëm ci yoon wi dina fexe leeral ko ba nga xamante ni bii mbir mi dina tegu ci siraatal mustaqim sénégalais yi daal day voté ci jàmm ak salaam. Hmm. ñu tànn ki nga xam ne moom la ñu tànn dal am ci réew mi euh, ngir mu mën a toog ci réew mi. parce que hmm. président toog ci réew mi. man loolu laa koy ñaanal mu mën a toog ci réew mi. Mm-hmm. Marème fay mën di doxantu ci Sénégal di dem fu ko neex te dara du ko ci fekk ci jàmmam ak salaam amadu sàll mën dem restaurant sàngam nga daje fa ak ngeen añandoo ngeen di gisante ñu ne kii de doomu ancien président la kii de président de fii la dëkk muy mën a saafanteeg nit ñi jabaram de fële la dëkk moo bokk ci natt sàngam moo nekk fii comme ni nga xam noonu la koy doxalee. Hmm. mais loolu aussi tamit dafa am lu koy maye. Hmm. li koy maye nag ñu ngi koy ñaan rek ci diirëb jamono ji ñu nekk nii mu ne ca loola parce que bu nekkee ci loolu loolu dina mën a ne parce que président ba génn na dëkk ba mënatu la ñëw dafa fekk ne dafa am lu mu fiy bàyyi loo xam ni mooy mën a tax loolu du am comme que nag moom xelam mi ngi ci nekk ci biir réew mi toog fii vraiment jàpp naa ni lépp loo xamante ni bii war na kaa mën a may loolu. Hmm. muy juróom-ñaari weer yi gëm naa ni kon mu ngi ci yoonu taxaw ci lu mel noonu loolu nag bokk na ci fexe ba candidat yëpp daal di mën a dem ci élection yi mu organiser élection yu leer ki nga xam ne mooy gañe gañe bokk na ci tamit ngir mu tàmbali liggéey boobu détenu politique yi nga xamante ni bii ñu ngi ci prison yi ñu libéré leen ñu dellu ci seen kër del jot na tamit ci li nga xamante ne bi moom la ñuy tuumaal justice depuis lors nga xam ne dañuy wax ne justice desena juste mu fexe ci diggante bi euh, nu justice tegoo ci li nga xamante ne bi moom la ñuy wax siraatal mustaqim comme ni ko ñëpp bëggee gis ko lépp loo xamante ne bi xeeñ na lu jëm ci wàllu politique mu jóge fi bu boobaa mën gëm naa ni sénégalais yi mën réew mu mën a pardonner lañ mm. peuple bu mën a jéggale lañ mm. te puis peuple bu bëgg jàmm lañ gëm naa ni su fekkente ni bii loolu muy wax lu mu nar la hmm. dina commencé di tegu ci yoon wi waaw léegi nag wax nag ak jëf mën nañu bañ a bokk hmm. mën nga wax lii nit ñi dégg loolu rek mais nga jëf leneen hmm. lii am ëllëg yàllaa ko xam waaye daal en tout cas am na loo xamante ni bi boo ko bëggee dafa am noo xamante ni bi noonu lay demee sinon rek yii ma wax pour mu mën a ne day compliqué te président du mag mën naa dem élection mën naa mën mën mën naa euh, toog fii beneen élection ñëw mu présenté waat parce que nee nañ constitution may na ko lool hmm. mais damay dégg ñaan Sénégal moom baaxu ko ku pare si réew moom si fi ni duñ la falaat non dañ ne ñaari mandat kenn mënut a def ñaari mandat yu tegaloo loolu la ñu wax mais bu yooyu jeexee kenn mënut a def ñe kenn mënut a weesu ñaari mandat yu tegaloo mais bu weesoo bu keneen ñëwee je pense que mën nga sampaat sa nënd président Macky Sall waaw bu ñëwaatoon Sénégal yi bañ Abdoulaye Wade bu ñëwaatoon Sénégal yi bañ non ñooñu seen dañoo âge même seen parti yi PDS xam nga tey non xam nga PDS. jeexal euh, ñëwaat laajaat ñu joxaat PDS. noonoo xam nga lool ñun li fi amagum. Hmm. lenn la alternance bi moo fi am ñu ñaar la benn bi Abdou Diouf jox Ablaye Wade beneen bi Ablaye Wade jox président Macky Sall. Hmm. du dëkk PS bi mu ñàkkee ba nëgë ni ñëwut mais ñoom nan lañ doxalee seen partie parce que Ousmane Tanor Dieng mooy ki nga xamante ni kii moo ko jiite woon après Abdou Diouf. après gis nga parti bi am na ay fissure parce que gars yi ñu ci bari duñu fa xaaraat yenn yi pour defaraat parti bi loolu mooy problème ñoom parti ci seen problème bopp la. parce que Abdou Diouf bi nga xamante ni bi jóge na fi Ablaye Wade di ñëw diggante bi PS am na ñu bari ñoo xamante ni bi euh, bi ñu am na pourtant PS sax résister nañ tuuti. parce que PS nañ bu nguuru Ablaye Wade yëpp résister nañ mais après parti bi dafa toj. xalifa jël lii leneen li tanoor jël ko loolu bokk na ci li nga xamante ne bi jaxase na après parti bi. jaxase na après parti mais président Macky Sall discours muy def naan ma paree du ma dem ak su ma mi du def ni du ma toog est-ce que du tiidloo ñi mu àndal ak ndax yeneen wax yi dutuñu ko mën a wax yeneen ensiré gi ñu ko doon ensiré jege gi ko doon jege ak li ñu pour moom est nañ ko nan ñemeeti. waaw ku mu tiitloo nag sag njub des na. Hmm. parce que bu fekkee ne yow kañ da nga doon jubal yow xanaa préparé woon yow it après bu président jeexalee nga nekk fi. Hmm. ku mu préparé woon nag pour bu président jeexalee nga gànd génn dana dëkk bi pare ci réew mi kooku hmm. dana tiit hmm. waaye képp koo xam ne pré woon nga après nguuru président Macky Sall nga des ci réew mi am na noo xam ne noonu nga war a doxalee donc je pense que loolu mu wax noonu wax la joo xamante ni bi dafa valable ci ñëpp ñi nga xamante ni bi ñi ngi ci mbir yi ci jamono jii képp koo xam ne yaa ngi jëlëb dogal wala ngay def lenn booye ba nga def ci très parce que nan ngay nekkee ci biir réew mi ëllëg donc en tout cas lancé na daal wax na wax joo xamante ne bi mën na indi tiitaange ci ñenn ñi mm-hmm. mais ñenn ñooñu nag tiitaange googu bu ko indee ñoo ko teg seen bopp mm-hmm. peut-être ñoo def lu ñu war a def waaye nag defe naa ne ñu nga nekk ci am réew jàngee fi mm-hmm. juddoo fi jàngee fi toll fi ni nga toll tekkee fi ñu ah. jox la post ñu dem ba nga xamante ni bi nguur googu daanu na ñemetewu faa toog la nga doon liggéey taq na suuf taq na suuf waaw